الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xanaa di jéggalu mbokk yi maanaam dars yi ci ab diir bi mu taxaw yëpp wéré ji mooy li ko waral ñu ngi ñaan yàlla mboole ñu defal tawfiq ñun ñëpp moo tax ñu nam ma ko toppi fàttali bu gàtt rek amaana laal la àllarba ji di ñëw bi isnil mawla bind yëpp dina tàmbaliwaat may fàttali sama bokk di leen fàttali bokk na ci usulul iman mooy source yi nga xam ni mënta ñàkk ci ngëm yàlla nit ki pour mu wér mooy al imaanu bil yawmil axir nit gëm ni bisa ngi ñëw alaaxira day am sikk sàkk nekkul ci ni képp koo xam ni gëm na gëm gu wér ni alaaxira dina ñëw kooku day feeñ ci ay waxam day feeñ ci ay jëf loolu kenn mënu koo nëbb alladina yuminuuna bil gaybi wa yuqimuuna salaa ñi gëm lu fàddu te bokk na ci lu fàddu mooy bis dina ñëw damay faatu ñu yëpp ma yàlla subhaanahu wa taala su ko defee loolu dafay waral nit ki di bàyyi xel digganteem ak boromam mbokk yi maa ngi fàttali xadis ab abi hurayra radiallahu anhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna al mumin ida kaana fi inqitaain min addunya wa iqbalin min al axira atathu malaikatun biidu lwujuh ila axiri alxadis saa bu nit ki nag dundee ci àddina àpp bi sunu borom jàppoon ni diw sàngam nii nangami at la war a dund ak i minute ak i cerce ak i seconde ba mbir ma jeex sa mujjantali dund nga xam ni suñu borom daa dogal ni cinq heures ci ngoon nga war a faatu fil waxtu du ci yokk waxtu du ci wàññeeku kon jamono bi ñu demee ba quatre heures dañu jot day fekk ni nit ki trente minutes moo ko dese pour àddinaam jeex kon mën naa mu fekk sukuraat bu fekkente ni kuy sukuraat la wala mu nekk loo xamante ni une seconde une minute moo la des su fekkee dee dalaa bett ci accident wala demee noonu kon soo nekkee fi inqitaa'i min ad-dunya war a tàqaliku àddina wa iqbaali min al axira léegi yaa ngi dëgmal al axira mbokk yi est-ce que ñun léeg-léeg dinañuy wéet ñu bàyyi suñu programme yëpp waaye li ñuy xalaat rek mooy bis bi nga xam ni man tey laa war a génn àddina dem al axira gis nga man ñii koy wax dama kaa war a gëm di ko xalaat yéen di ngeen ko war a gëm di ko xalaat parce que mooy li am laa sakka du lu ñuy werante laa rayba fii sikk sàkk amul gis na doomu aadama su fekkee ku gëm yàlla la ci militam yu mujj yooyu suñu borom dafa yebal malaakam dee malakul mawti xam ngeen malakul mawti dafay am ñu ñu koy dimbale qul yatawaffakum malakul mawti alladi wukkila bikum summa ila rabbikum turjaun ak yeneen malaaka yi muy àndal xatta ida jaa ahaduma toofat rusuluna jamau la ko def parce que dafay am ñu muy àndal malaaka mi yonent yàlla bi nee na alayhi salatu wasalaam malaaka yi dañuy ñëw wër waa ji bu fekkee ku tëdd la maanaam dañuy ñëw wër ko yépp ci wet gi ba mu des côté bopp bi wa antum xiina idin tanzuruun mooy yéen yéen a ngi teew xam nga malaaka yi ñu ngi wër mbokk yi tamit ñu ngi ko wër tiim ko suñu borom ne xiina idin tanzuruun yéen a ngi gis waaye wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruun ñun suñuy malaaka ñoo leen gën a jege ñoo ko gën a jege waaye yéen gisu leen yéen su ko defee malaaka yi dañuy ñëw di xaar kilifa gi muy malakul mawut malaakam dee su gaa yi toogee ba noppi dafay daal di wàcc nag moom ñëw bu ñëwee moom fi tolloog bopp bi fa lay wàcc muy lu tiis loo xam ne mbokk yi kan ci ñun lay fekk ci xaaju guddi mu fekk ko muy nelaw kan ci ñun lay fekk ci ak topp yàlla walhamdulillah kan ci ñun lay fekk ci mooy yàlla wala ayaadu billah lu jar di xalaat la gis nga hada almawt haadimu lazat naxata ala ahli naimi naimahum ñi xam lan mooy dee dëgg bañ tàmbalee noos xam gi ñu xam dee moo leen sonal moo leen yàqal benn borom xam-xam mu ne jëmmi xam dee rek xam ko rek lu yàq noos la mu ne naxata ala ahli naimi naimahum ña doon noos bañ ko xamul la noos te neexoon dañ ko xamee rek jëmmi xam ngaa tax noos bi neex bi bu ñu dikkee wàcc ba tolloog bopp bi malaakul moo ci daal di ñëw su yegsee da yonent yàlla bi ne day yor benn xalaat ci xalaati ajana yi ak laltu ban genre pulaar tisi ci tisi ajana yi ndax waa ji ku gëm yàlla la malaaka mi dafay wax ee yow ruugu sell gi yow de xam naa ne yàgg nga dundal jëmm ci ci ay topp yàlla lii may wax damaa boole ay riwaayaat moo tax mu demee nii ndax am na xadis yoo xam ne ñëw rek génne roogi def waaye beneen riwaaya bi dafa wax ne yàgg ngaa dundal jëmm ci ci ay topp yàlla génnal ci yombaluk yàlla ngir jëm ci kontaantek yàlla yeneen bi neen su ko defee ruugi buy génn day rocceeku ndànk day mel daal yow mu yor sa capteur rek mu fattuk nga xel ni ndox mi ni muy génnee simple noonu la ruugi yi génnee loolu moo tombeeg wan naashiqaati nashqa ruugi daal di génn yéen yàlla mais bu ruugi génn nag xam ngeen bu ruugi génn yéen yàlla inna al ayna yatba tatba'u al basar bët dafay topp si al basar yatba'u ruux day topp ruugi moo tax nit ki di ubbee ko ay bët ñu naan tëjal leen ko bët su ko defee yéen ki ne malaaka yi dañuy ànd nag ñoom ñëpp di yéegal ruugi ca kaw asamaan gis nga bu ñu demee ba ci asamaanu benneel bu ñu leen ubbilee waa asamaanu benneel dañuy wax ni ah waaw gëtt gii muy farfar bu xeeñ gi xeeñ lu xew malaaka yi ni diw doomu diw ak diw ak diw moo faatu tey ñu ni ah waaye kii de ñu ngi koy ndokkeel ak xet gu neex gii day firnde la buy indi am mbégte ab délégation ànd ak ñoom gunge ko ñu dem ba ci asamaanu ñaareel kadalik asamaanu ñetteel kadalika buñ demee ba su suñu boroom suñu boroom daal di seede ni moom gërëm na jaam bi mu ni uktubu kitaaba abdi fi illiyin bind leen turam ca registre bi nga xam ni kuñ ko bind sa tur mooy wane yow di nga dugg àjjana suñu borom mu ni enregistré leen fa turu waa ji te xam ngeen ni foofa foofa wallahi mbokk yi duñ fa bindee sa tur di ko effacé waat léegi après suñu borom mu ni malaaka yi wàcce waat leen ruu gi tombeeg mbokk yi suul ko ba noppi ndax mbir mi jeexagut jamono jooju maraw gi dem na tombeeg mbokk yi bu dee hôpital jëlee nañ ko hôpital bu dee ci morgue bi génne nañ ko defar nañ ko yóbbu nañ ko suul nañ ko gis nga buñ ko suulee ba wane gannaaw di dem rek yàlla day delloo siwaat ruu gi muy dégg seen capar capari tànk yi comme ñu ci beneen xadis wa innahu la yasmau qaraan alihim capar capari tànk yi nga di ko dégg mu wér la ni fi nekk noonu amatut ay ay ay ay ay naan ndax lii gént la ak lépp la déedéet réalité la mooy da ngay xam ni yow da ngaa dee c'est que problème bi li lii problème bi mooy réalité yooyu ngay dund jamono jooju du bokk ak réalité yi fii ci àddina waaye nag da ngay ànd ak sa conscience yëg ni man damaa dee dan maa suul ñi ma doon suul tànk yi may dégg ñoom la ñu ngay ñii foofu nag doomu aadama dina ànd ak ci njaaxle loo xam ne yàlla rek moo ko xam walaw kaana muminan yéen bu doon ko gëm yàlla yent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ruugi daal di yegg si yàlla yebal ñaari malaaka yu ñox munkir ak nakir ñu daal di koy fekk ci bàmmeel bi di ko laaj ba léegi ñu ngi ci ku gëm yàlla ki buñ ko laajee kuy sa boroom dafay tont jàng arab ak mën a tont ak mën a wax du tax nga tont foofu déedéet réalité addina yi boobu sax yu àllaaxira ya foofu moom def rek mbaa noppi kuy sa yonent mu tont kuy sa diine mu tont l'islam loo doon wax ci waa ji muy Muhammad gëmoon naa ni mooy ab yonent toppoon naa ko gis nga pour wan la ni la ku gëm yàlla sax mucc am na beneen riwaay yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam gis nga ku gëm yàlla buñ ko laajee loolu ba noppi malaaka yi dañuy wëlbati ko répété waat affaire bi baral laaj bi pour bëgg koo jaxase mel ni ko koy jaxase foofu nag la aaj ñëw yuthabitu allahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lxayati dunya wa fi laxirati wa yudillu allahu zalimin wa yafalu allahu ma yasha foofu nag ma ndabbu ko ma nabi ko affaire bi mel ni du bëgg a jaxasoo ci say nit yàlla nag daal di dim andi ndimbalam dëgëral ci gëm yàlla làmmañam répété waat lim waxoon du ci jàdd dara yent yàlla bi nee na ñu daal di koy xottil nag ci biir bàmmeel bi maddal basar gis nga boo taxawoon fii tey tali bi gaaru la dara gaaru la ngay sànni sa bët xam ngeen ne bu ku xool fii dara baarewu la fa sa bët mën a sori ku ne xam ne ni comme yem sori na ñu xotti la lu toll noonu ne la gis nga lii lépp ñu ngi koy yàllu ci sa bàmmeel waaw bu doon affaire yu jege dëkk ba xanaa kon xotti nañ la loo xam ne duggale nga ba ci biir dëkk bi bu mu la jaaxal parce que réalité yi addina yi bokk sa yu àllaaxira yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ñu daal di koy branchel xéewal gu jóge ci ajana ja mu di ko fekk ci fii ci biir bàmmeel bi gis nga waa ji dafay kontaan ak kontaan ak kontaan banaan yaa rabbi aqimi saa yàlla alaxira da taxaw léegi léegi léegi léegi ma dellu gis sama njaboot gi lu jëm fekk déedéet sunu borom subhanahu wa taala ni déedéet ida jaa ajaluhum la yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun yonente bi yam foofu alayhi salatu wasalaam mu ni am naa ci nga xam ni moom ab yéefar la wala ayasu billah yàlla na yàlla boole ñu ci musal ñun ñëpp mbokk yi musiba ji buñ nee yéefar bul jàpp ni mooy tubaab ba nekk fële du julli di wóor déedéet yéefar bi suñ ko waxee mooy koo xam ne yàlla nangulu ko day tàbbi sawara loolu lañ na mu ci yéefar kese mën nga nekk julli ba dee fekk sa ngay nar a bokk wala ayasu billah yàlla na yàlla sunu tala musal ñu mbokk yi su fekkee waa ji nar ta texee yonte yàlla beneen malaaka yi dañuy ñëw ba tiim ko ñu wër ko nii malakul mawti wàcc tiim bopp bi suñ wàcc mi ngi ànd ak mer ndax ñoom it ay jaam lañ yoo xam ne laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yagdabuuna li gadabi arrahman ñoom dañuy mer ndax yàlla moo mer subhanahu wa taala waa ji ma agna anhu jamu ma agna anhu maalu halaka anhu sultaanu lépp réer na ko tey keroog nga yëg ni li la tere woon a jaamu yàlla dara ko ci jaru dara dara jaru ko ci ndax lépp da dox na sa digganteeg moom wa xiila baynahum wa bayna maa yashtahuuna kama faala bi ashyaihim sa digganteeg ñi taxoon mënoo jaamu yàlla suñu borom yi dox nañ sa digganteeg moom léegi yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne malakul mawti daal di ñëw ba tolloog bopp bi daal di ee yow ruugu sibu gu salte gu bon gi génnal ci merum yàlla jëm ci merum yàlla subhanahu wa taala loolu mooy tombeeg wan naaziaati garqa yéen ci yàlla beneen na wax jooju dafa mel ni buñ ko joxoñee ruugi wax ko ko ruugi dafay jaxasoo ci biir yaram bi maanaam dafa mel ni nit ku doon defee nga wax ko benn affaire mu mel ni ku naan sàngara ruugi dafay jaxasoo bu doon ak butit la butit ni muy ni muy ni muy lëmasoo noonu yéen ci yàlla ruugi noonu lay lëmasoo mboolem fu nekk ci cër ci yaram bi loolu mooy waral ku nar ka texe ak dee di métti ci moom parce que fii lay tàmbalee ruugi day lëmasu ci yaram yépp su ko defee ñu di ko xëcc di ko biif di ko xëcc di ko dif mooy wan naaziaat nazaa mooy xëcc dif ñu ngi mel ne nga jël benn lañ boo xam dafa am ay ay nga nga jël ko rek bëtt ci saako coton rek xëcc génn génnin bu salte te ñaaw lay génn yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ñu daal di xëcc ruugi buñ ko génnee fekk ñu ngi yar ay palaat yoo xam ni ni mu tilimee morko yoo xam ni ni mu saltee xet boo xam ni ñoom ci seen jëmmi bopp sax ñu ngi ko téye te bëgguñ koo téye yéen yàlla beneen ku ciy dem rek yaa ngi yàkkamte mu jóge ci say loxo ñu daal di yéeg ak moom bu ñu yéeg ak moom ba ci asamaanu benneel xel mbokk yi kee teraanga ji mu amoon parfum bi gëtt bi bunt yi ñu ko ubbil ak malaaka yi ko gunge kitaabahu fi alliyin yàlla mi kontaan ci moom xoolal ci li moom ci teraanga kii nag moom yàlla da koy jéppi ba asamaan duñ ko ubbil buntu bu mu jàllee inna alladina kafaru laa tufattaxu lahum abwaabu samaai wala yadxuluna aljannata xata yalija aljamalu fi sammi alxiyaat ñi nga xam dañoo weddi yàlla suñu borom mu ngi jéppi leen dana tax bunti asamaan yi du ma leen ko ubbil te yemul ci loolu mooy àjjana du ngeen fa dugg ci fonkalum gileem xajul ci bën bënu puso àjjana doo fa dugg moo doo fa dugg mu jeex rek gileem ku ne xam nañu àdduna du yàggoom xaj ci bën bënu puso yéen ci yàlla beneen ñu daal di sànni ruugi wa man yushrik billahi fa ka annama xarra min alsamai fa taxtafuhu tayru aw tahwi bihi riixu fi makanin saxiq ñu daal di wàcc ruugi mu sànneeku xalaw la wi sànni jugi ca kaw di xalaw la wi di wàll xool kii teraanga diñ ko yóbboog teraanga diñ ko dellu see xoolul kii musiba diñ ko yóbboog xalkaande diñ dellu see ñu daal di ñëw ba tolloog foog mbokk yi defar nañ ko ndeysaan yóbbu ko ca bàmmeel ba suul ko juróom ay jéego yi dem rek ndeysaan mu dégg seen baat yi nag yonent yàlla bi nee na foofu dana fa yuuxu yuuxu goo xam ni lu dul nit ak jinne gis nga fi ne boo génnoon ci mbedd mi fas moo taxawal mbaam moo taxawal ni ko gëj ngaa dégg yuuxu bu jóge àllaaxira danaan la fi ñi ngay wax yow maa ngi koy dégg yonent yàlla ne lu dul nit ak jinne dana dégg yuuxu googu ndax dafay jaaxle ku mu xam dana ko woo waaye nag xii la bay na bay na maa yastahun li nga doon dund ak lii tey bokkatu yonent yàlla bi ñu toogal ko ñaari malaaka ñëw buy munkir ak nakir melokaan bi ni ñëwee wala ayaadu billah damay wax ni dégg ko sax dafa dafa dafa dafa tiitlu dafa rafetlu ñu laaj ko ndeysaan amaan na licence wala doctorat amoon na ko ci làkku arab waaye buñ ne ko maa rabb ko du xam lu muy tekki man rabb ko du xam lu muy tekki parce que li tax mooy mbir mi du question que làkk bi mooy tax mooy tax waaye ngëm yàlla ngay tontu foofu parce que réalité àddina du réalité àllaaxira sentiment yi daw fi dawul fële yéen bi yàlla ne laaj buñ ko laaj dafa wax la adri man li ngeen di wax daf li ngay wax sax laa xamut man comprendre ma li ngay wax su ne ko muy sa borom mu ñu man li ngay wax laa xamut loolu luy loolu kan mooy sa yonente mu ni la adri man li ngay laaj moom du xam sax lan ngay wax sax yéen ci yàlla bi ne foofu kooku dina mer mer moom li yar lu ñu tuddee mer saba benn yatu yatu weñ boo xam ne buñ ko ko dóoree yent yàlla beneen yuuxu gi mu yuuxu adduna bi yépp danañ ko dégg lu dul nit ak jinne subhanallah mbokk yi xoolal yiw ciif xoolal yiw musiba fekk jamono jooju say mbokk ña ngay noos di ko nas ak ay nas di nangam di xawaare di nangam amaan na sa soxla sax ay góor ñu ngi koy fii soole ko soxlaw ko après fekk yow yaa ngi ci musiba ji nga nekk est ce que kooku jaroon na ko sa alal dina tëre woon na mooy yàlla nit ñi ñu ngi koy commencé fooyee te demagoo fenn est ce que jaroon na ko déedéet yent yàlla bi nee na ñu daal di koy xatalal bàmmeelam ba faari ndey jooree faari càmmo ñi dafay daje ñu daal di koy wan këram ca ajana ni ko gis nga kër gii mu ne waaw fii moo naroon nekk sa kër ci ajana xool lu gën a tas yaakaar loolu mbokk yi li nga waroon a am muy xéewal jotoo ci ba noppi ñu war la ko ñu la mi ngi nii perte na ko xam nga ñàkk koom gi sax pour man moo gën waaye mën nga ne leen maab ba nga ko yaa nga doon tabax sa kër bi nga nekk sa war a gis nga mi ngi nii ñu daal di ko fay ubbil musiba mu di ko fekk wala alhamdulilah xadis bi foofu la jeexee li may jeexale mooy beneen riwaaya Abu Hurayra mu ni nit bu faatoo ñu suul ko yóbbu ko ay mbokkam ñim fa fekk ci bàmmeel bi te xam ay mbokkam dañ koy xam bu ñu amee gan gu bees ñëw bu bees ruu yi dañuy xamante ku ñëw tey ci ngoon bàyyi diw moo ñëw li may xadis wér na sax Nasru Albani wéral na ko saam jaamea ñuy laajante ci seen biir waa ana diw ah waaye diw kay ma nga jo addinay dof dof lu rek ana diw ah diw de ndeysaan moom de ma nga fay baax rek ana diw diw de moom ma nga fay nangam na ana diw ah yow diw moomu njëkk a dee de diw gisu leen ko fii yent yàlla beneen ne su ne gisu leen ko fii de te ñooñu ñooy ñi gëm yàlla saabu gis ko mooy kon bokku ci ñuy texe wala ayasu billah mooy diw mi la njëkk a dee nga dem ci arwaaxul muminum fekkoo ko fa saabu gis ko mooy ci arwaaxul kuffaar ah kooku ana moom yéen kooku moomu njëkk a dee de ñu ne ko ñun de gisuñu fii ñu ne kon de zahaba ila ummihi lhaawiya kon de kon moom dem na haawiya loolu kon mbokk yi jàpp naa ni bu fekkente ni nit ki xolam baax na ngëm yàlla wir na lii da ngay toog guddi ak bëccëg nga di ci xalaat léegi bàyyil xadis bi bàyyil malaaka yi bàyyil nit ñi bàyyil ñee bàyyil ñële ñëwal ci sa bopp yow la yow kenn nga ci ñaar ñii kan nga tey doon na loolu Omar ibn Abdul Aziz doon wax benn bis dafa tëju ci néegam mu jooy jooy yu metti metti ak mbokk yi xool na Omar ibn Abdul Aziz suñu tolloon ci ragal yàlla ba borom xam-xam yi mu arrixul naan Abubakar ak Omar ak Osman ak Ali buñ dee am morom Omar ibn Abdul Aziz la war a doon mooy xaamisu xulafaay rachidin ci njub ak mbaax ak ragal yàlla soxnaam jikk fekk muy jooy mu jooy jooy yu metti moom it lan ngay jooy saaliwu moom xamul lu muy jooy muy jooy rek mbindaan mi ne ci kër gi tamit kadalik jooy yi takarnaate ñu daal di woo benn xaritam ni ko yow ñëwal nga wax ci kii moom ci xamul luy jooy lan la ñu dikkee daal di koy laaj lan ngay jooy mu ne dafa jàng alquran xelam dem ci aaya ji suñu borom jox ni fariqun fi ljannati wa fariqun fi lsair wa omar baynahuma kuréel bi ñu nga nii mbooloo mi ña nga dem àjjana mbooloo mi ña ngay jëm safara man omar maa nga ci diggante bi fan laay bokk man fi may bokk mooma gene fan laa war a bokk mbokk yi ñun ban confiance lan am ndax dana def ci ay jaamu yàlla loo xam ne day tax loolu duñu tiital ñun ndax suñu bàkkaar dafa néew wala boog dañu ko jéggal ba tax loolu tiitaluñu li ñuy wane benn résultat kese la boo xam ne bu ñu jugee nañ ci jéem a góorgóorlu mooy suñu ngëm yàlla yi fi boppam fam war a yegg moo def moo tax ñu ngi ñaan yàlla suñu borom bi asmail husna wa sifatihi al ula nga xam ni képp ku ko ñaan ci turam yu màgg yooyu mu may la ku ci muslu mu musal la ku ci xëccali mu xëccali la yàlla na yàlla musul nu ci sawara ci musibam ba gis sax duñ ko ko def wallaay mbokk yi am na ñoo xam ne sawara xol dégg sax riir ma duñ ko dégg ndax yàlla moo leen digal la yasmauna xasiisaha yàlla ne dinaa leen dimbale ba yéen riirum safara ma du ngeen ko dégg wahum fii mashtahat anfusuhum xaalidun du ngeen dégg sax riir ma dama yeg di ko dégg sax loolu musiba la loolu yàlla na yàlla defal na ko waaye yàlla na yàlla may ñu aljanna ci xiwal yàlla na yàlla def suñu mujjantali kàddu mu nekk laa ilaha illa allah li ñuy def ci yiw lu mu tuuti tuuti tuuti yàlla na yàlla sellal ko te fulal nu ko wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain